sàkku gan waxoon nañu ko ci ponk xibaar yi euh, Cheikh Tidiane Gaajalo nekk nag euh, nekkoon ki nga xamante ni moom la ñu dénk wàllu jëflante ak bi biti réew mu jóge nag tukki ca Bénin demoon teeway fa li nga xamante ni moom mooy faluk njiitu euh, réew ma moo fa jiite woon kon mission bu d'information et de contact de l'organisation de l'organisation national de la francophonie ñu dellu dellu dellu di nuyu Cheikh Tidiane. fay l'organisation internationale. internationale voilà de la francophonie <laughs> euh, OIF. njuumte la waaw ni ñu ko mm. waxee rek nga demoon foofu teewee ji li nga xamante ni moom mooy faluk njiitu réew ma. Mm. gannaaw nag ba ñu ca génnee ak second tour ba nan nga seetloo élection yi foofu. waaw ba ñu fa yegsee euh, ba ñu yeggee beneen dañu fa fekk situation bu xaw a doy waar maanaam carte électeur yi ñu waroon euh, distribuer maanaam képp ku war a voté nekk citoyen ñu waroon la jébbal sa carte carte 2016 dafa amoon diwaan yu bare département entier yoo xam ne jotaguñoon benn carte. te mu desoon ñaari fan ñu jublu ci élection yi ñoo ngi woon vendredi samedi dimanche ñu war a voté euh, conseil seen cour constitutionnel dafa jàppoon ne euh, ñi am euh, carte 2015 war nañu mën a voté bu dee jotuñu seen carte 2016 far commission nationale électorale ba jël décision ñaari fan avant ne ku amul carte 2016 ku amul carte 2016 doo mën a voté bañ fa yegsee ñu xool situation bi ma taxaw ci nag lu ma mën ak sama délégation dafay jéego démarche fu nekk ñu dugg fa ba après Union africaine ak euh, CEDEAO ñëpp félicité suñu délégation ak ni ñu jàppe woon ci ne problème boobu il faut ñu regle ko yàlla def nag samedi boobu ca guddi. Euh, comme président commission électorale bi jël décision ànd ci proposition yi ñu ko defoon ba yàlla xëpp ci ndox mu sedd élection yi ñu doxalee ko comme il faut teg ko lépp ci yoon ba ñu am deuxième tour boo xam ne léegi dina boole euh, ancien euh, premier ministre Zinsou bu fa nekk ak benn homme d'affaires bu am doole moo fa gën mu ëpp alal ci réew ma tudd Patrice Talon waaw lu jëm ci loolee sax ñu ngi ci second tour bi wax nga ko euh, li ñu faral di seetlu muy fraude ñu koy faral di tudd ci élection yi raw ak ci réew yi Afrique yi mm-hmm. est-ce que loolu njortuñu ko fa ndax transparence bi ñuy wax am na fa. c'est que xam nga euh, Bénin dafa réputation Sénégal maanaam ay laboratoire démocratie lañ ci Afrique maanaam lu bare foofu lay commencer fa lay dooree fa lañ koy euh, essayer ba xool bu doxee ñu yóbbu ko feneen ci Afrique donc ñoom tam réew réewu démocratie bu mag la ay réew intellectuel yu am yu am maanaam gouvernement yu am kattan euh, mooy Bénin donc euh, boo fa demee tamit da ngay maandu tey xool ni ñuy doxaleek yooyu euh, élection Afrique moom ay ñi nga xam ne dañuy jëm a forcer ñi nga xam dañuy ñëw di jënd vote nit ñi ñëw ak xaalis ñuy jëm voteloo ay xale ay mineurs munoo ko presque éviter ci élection yi ñu amagum ci continent bi mais boo xoolee globalement da nga naan bu dee point yi point positif yi point yu baax yi moo ëpp point yu négatif yi nañu concentré ci positif bi moo tax kandidaa yëpp te dama gis seen ni sénégalais yi def bu ñu wootee def li ñuy def ba pare altine ñu yeewu dem liggéeyi ne tekk tey xaar résultat yi lool la béninois yi wane ma gërëm leen ci félicité leen ci et am ci mbégte wu mag parce que man panafricain la réew bu ma dem ci Afrique je me sens chez moi damay xalaat ne maa ngi sama réew maa ngi sama dëkk donc fierté boobu am naa ko ci béninois yi. réew dem ci Afrique nga demoon tamit euh, Centrafrique bu yàggul. foofu it nga doxoon fa nga demoon fa ngir dox tànku jàmm am nga fa nag koo xamante ni jot ngeen gisee ñu gën ko xam ci Noureddine Adam bu Front populaire pour la renaissance de la de la Centrafrique euh, ndax euh, mën nga ñu wax yan condition ngeen gisee yéen ñaar c'est-à-dire que kii euh, xam nga ne OCI organisation coopération islamique dafa ma dénkoon dossier Centrafrique bañ fa jógee sax léegi yaatal nañ ko nee nañ lépp lu jëm ci Afrique daf nañ ma envoyé spécial pour ma dimbale leen ci problème Afrique loolu moo tax sama tànk bare loolu bitim réew ba sama yenn mbokk Sénégal yi du ko jooytu ne ma toogal ci réew mi fii tamit problème yaa ngi fii pour ñu jàpp ci incha allah dinañ ko def mais ci biir loolu bañ ma dénkee Centrafrique li ñu njëkk wax mooy def leen attention xeex bi am fii boolewul ay jullit ak ay catholique rek dafa am yeneen problème yu ci rax depuis indépendance réew ma dafa dafa kiiwul euh, te teeyul daal problème yi coup d'état yeeg guerre civile yeeg ñoom seen donc ba ñu de bëggee def référendum bu jëkk bi ci constitution bees bi ki ñu naan Nouridine Adam mi nga xam ne mooy jiite ay ay ay musulman ay rebelle musulman mu ne élection du fi am parce que seen li ñu doon jooytu ñoom en tant que jullit kenn joxagu leen seen seen cër bi ñu xam ne war nañ ko am ci réew mi donc mu presque mu tere référendum bi am alors ma contacté secrétaire général OCI ne ko xoolal il faut ñu waxtaan ak Nouridine Adam mu bañ a tere élection présidentielle seen gise na ah dañ ko dañ ko laaxarti ne xam nga diplomatie ak euh, relation internationale dafa am toujours nooy doxalee munoo wax say source ak munoo wax noo doxalee comme yéen journaliste yi ni ngeen mel ci source euh, très rapidement ak li nga xamante ne dox nga ko fa est-ce que tey mën nañu yaakaar euh, ne jàmm mën na delsiwaat foofee ci réew non ba Nourdine dañ ko signaloo accord ne mu ne bàyyi na ngànnaay yi bàyyi na xeex bi na gaa yi def élection yi moom sax mi ngi mi ngi jéggalu ci li mu ne woon day xaaj réew mi ci ñaari réew benn réew mi nekk réewu jullit réewu catholique mu ne génn na ci partition ba léegi Nourdine collaborer di collaborer Nations Unies ñëpp gouvernement ba ñëpp félicité. ci conseil yi muy lëkkaloo ñu wax ci euh, référendum bi également référendum bi yow ne nga déedéet ngay wote lu tax. mais li tax ma naan déedéet parce que Sénégal quand même dafa am lu ñu yàlla may euh, depuis 1848 Saint-Louisiens yi ñu ngi doon voté Sénégal yàgg am tradition démocratique li ma xaw naqari euh, muy tiis ci man dëgg mooy loo xam ne bu ñu toogoon waxtaan ko entre sénégalais mën nañu juboo ci kàddu ci lu bare président Macky Sall da bokk ci suñu génération. dama comprendrewul nu muy mën woo sénégalais yi ci lu am important lu toll ni constitution ba pare mu boole ci fukk ak juróom fukk ak ponk yoo xam ne dafa important ci réew mi mu xëy loolu yëpp mu yëgal ñu ko organiser ko ba pare jot yegg ci élection yi lépp ci benn weer ci fan weer yi fan li wala fi naan lu ñuy daw bay daanu nañ tey euh, tey boo jëlee n'importe que sénégalais ku ko weddi dina def sondage ne ko yan juróom fukki point euh, yan fukki point ak juróom la Macky Sall laaj pour nga nekk ko ci wii néew na ci Sénégal yu la ci mën wax juróom wala fukk parce que amuñu temps amuñu jot toog waxtaan loolu nag daf ñu xaw a daf ñu naqari ñu ne président reportel référendum bi Sénégalais yi toog waxtaan ñu bañ visiblement li ñu naan passage en force mooy jaay doole gaawantu def li nga bëgg a def loolu la ñu bëgg a def moo tax ma ne avenir u Sénégal jeunesse u Sénégal réewum Sénégal ak exception bi ñu nekkoon premier problème bi président am mooy digaate ne dina jël mandaam juróom-ñaari at delloo ko juróomi at te fii Sénégal balaa ñuy wax constitution balaa ñuy wax leneen ba ci ñoom Souleymane Baal ba léegi góor ci kàddoom góor day respecté kàddoom loolu sénégalais yi dañ ko gëm loolu boo jëlee teg ko fële ñuy wax wax jooju parewuñu ngeen ne léegi référendum yi fanweeri fan lañu leen may gaaw leen dañ koy def rapidement moo tax ma ne Sénégal nee leen ko déedéet ne leen ko déedéet du nii lay doxalee président moomoo réew li sénégalais naan borom réew mi erreur bu mag la njiitu réew mi la moom la ñu dénk suñu réew pour mu yoreel ñu ko donc moom moo ñu liggéeyal ñun liggéey luñ ko donc sur cette base bu defee erreur boobu dañ ko naan président li nga def du yoon démocratie peuple bi moom moom moom moom pouvoir bi daf la ko dénk pour nga doxale ko nii ak nii donc sur cette base ne ko da ngay arrêté ñu dem voté ji non bu ñu voté non ba président gis résultat bi xam ne ni mu doxale du noonu mu ñëw rëcc ko ci kanam askan wi nit ñi toog nag door a waxtaan pour ñu am vraie constitution parce que lii ñu jëm nii du constitution. mu mel ni seen gis-gis wute na moom. waaw la wax ci référendum yow nga ne déedéet également yaa ngi ŋàññi un peu li nga xamante ni moom mooy mandat bi ndax mën nañu wax ni seen ànd fi lay yem. yàlla xam benn affaire daal xam naa ko du ma jaawale ay agenda benn agenda leer na mooy agenda constitution bii nga xam ne euh, doxale na ko nii ànduma ci tey ànduma ci ëllëg te wax naa ko ba mu leer te góor buy wax daal na ko wax ba mu leer maintenant nag euh, bu ñu jógee ci loolu ñu def forcing boobu. ba pare bëgg continuer doxale réew mi ni ñu koy doxale am na yeneen point maanaam yeneen agenda yoo xam dinañ ko yëkkati dinañ wax effectivement ndax ànd bi foofu la mën a yem wala mais seetlu naa ne ba ñu defee loolu ba léegi am na ñoo xam ne perte nañu seen sago ñu ngi war di saaga nit ñi di xuloog nekk ci internet bi di yuuxu Sénégal réewu jàmm la réewu démocratie kenn mënul xoxatal kenn nit ñi dañu tey ànd ak seen sago bés boobu bu ci yàlla àndee le 20 mars peuple ni mu ko mos defee ak maturité bi ñu ko xamee dina ñëw voter non ñiy voté oui ñu boole loolu yëpp natt ko xool bu dee non yi ñoo gañee ne leen waa wii félicité ne leen yéen a am ndam léegi nag bu dee wii moo gagné tamit nañu toog rek en tant que sénégalais ñu waxtaanee ko xool trouver solution Sénégal moo gën lépp. moo ëpp Macky Sall moo ëpp Cheikh Gadio moo ëpp keneen ak keneen fii lañ ko fekk fii lañ koy bàyyi donc nañ góorlu sàmm suñu réew dem ci élection yi nag malheureusement ni mu ko doxalee du yoon du ñu sax am temps discuter lu ñu am temps teg mbir mi ci yoon waxtaan ak population ba ñu comprendre wataloo ay sénégalais lu ñu xamul génne xaalis bi ñuy wax. ay millions di ko jox ay comités électoraux naan ay milliards dégg nañ ko loolu dafa ñaaw ci réew mi loolu waru fi. mbirum également bulletin de vote yi bëgg naa nga àddu ci ndax euh, indi na aussi euh, ay gis-gis ndax dañu jàpp ni bloc du oui bi ñoom seen bulletin de vote dafa gën a ràññeeku buñ ko méngalee ak bloc du non bi ndax couleur ba nee nañ weex la rose la rose clair ñu jël weex teg ca. yow noo jàngateelu image boobu. xam nga man mbirum communication daf ma intéressé euh, loolu d' abord bu ñu jaaroon yoon bu dee élection la ñii dañu war a wii ñuy wax non dañuy wax camp du non camp du oui nañ toog ñu d' accord ci bulletin yi loolu mooy yoon. Sénégal fii du du yenn réewu àdduna bi nga xam li ñu naan république bananière mbir mi da koy teg ci yoon un defuñu loolu deuxièmement bu ñu choisir le bulletin boo xam ne leerul baaxul te ñoom ñu choisir seen bopp bulletin bu leer boo demee na naan sa gars yi bu ngeen duggee bi leer bu weex tàll bi ba xam ne rafet nga mën ko gis boobu bàyyi ko foofu nga jël beneen bulletin bi donc à en terme de communication du yàq dara nu ñu ko mënti defee mën nga leen ne rek expliquer sa bulletin nu mu mel bu leerul seen bopp bulletin ba nga xam dañ ko defar ba mu yànj teg ko pour jox ko nit ñi nga leen bàyyi leen jal boobu foofu mu gën a jale nga jël beneen bi dem du euh, dinañ euh, delsi si beneen laaj waaye loolee gannaaw élément bi lay doon mu kon élément ba sax sotteegul euh, ñu daal di wax nag ci forum boobu ni ma ko waxee nga waroon ko organiser mhm. budget ba nee nañ cent millions la téeméeri millions mhm. forum bi gannaaw bi dañ ko retiré mhm. yow loolu noo waaw xam nga man nag euh, kenn xamuma waxu ñàkk fayda ak euh, parce que quand même passé na âge boobu lépp lu jëm ci forum du wax ay waxu constitution ngay tontu forum mag kilifa day nekk kilifa waxu forum bi dafa jotagul forum fii ak décembre on a le temps nañu régler 20 mars ba pare après ñu jublu ci waxtaanu forum beneen affaire bi ma ci bëgg yokk mooy forum bi ñi euh, ko fi indi ak ni ñu ko doxalee ba sénégalais am ci ndam réew mi am ci ndam ñëpp kontaan ci bu wax waxam jotee dinañ ko wax mais xam nga ñu naan la non référendum ngay indi ay waxu forum euh, kilifa day nekk kilifa falaa mën a yem pour l'instant te honnêtement nag loo xam ne waxuñu ma ko officiellement ñu ngi ko teg ci ci internet beeg ñoom seen xam nga ni ñuy def rek manipulation yeeg neexal fii génn leen ma léegi yooyu kooku Cheikh Gadio kam yëfu xale euh, ku koo xam ne da nga am aspiration bés bu la yàlla dénk réew mi nga jiite ko doo ñëw di def ay yëfu xale yu demee noonu franchement loolu intéressé wu ma fi mu ñu di ko jaajëfal bu baax docteur Cheikh Tidiane Gadio nekkoon jëwriñ ji dénk wàllu jëflante ak euh, biti réew. fii ci euh, Sénégal am na loo tuddul nag mooy euh, luy jot jot na moom a taxoon toog fii tey ah MPCL suñu mouvement waaw. mi ngi noonu kon ñoo ko déggandoo. Mm.